en Emilia Romagna Toscana Lombardia Veneto Lecco Brescia ah Milano ah Como yéen ñëpp ñu ngi leen di woo Milan le 22 juin gars yi nag xam nga lan laa bëgg ngeen teel a réserver seen i billet 69 euros le prix vente yi yaa ngi sant 109 euros balcon ak 130 euros yi ñu nga jënd sa billet VIP de VIP yi ñoo nekk 109 ak 130. boo ko jëndee da ngay jàkkaarloog bi yoon du comme Brescia nga toog di sori waa déedéet da ngay jàkkaarloog waali muy way lu neex mais waali nee na bu jàppee waa Milan xam nga waali fu mus a ñëw day raakaat ñu day mel ne dañ koy pikiir non aada bay am nga problème interprète mais gars yi Wally Seck dina toj Milan le 22 juin incha allahu rabbi gaaw leen ngeen woote ci numéro yi am na nag benn table spéciale bu ñu tuddee table gold boobu boo ko bëggee da ngay woote nga réserver huit personnes ngay jël goldu la da ngay woote nga dugal sa xaalis réserver soo réserver incha allah ñu bàyyil la ko boo ñëwee nga mottali des. aada bay foo jëm a gaay biir Milan <laughs> le 22 juin waaye nag bu jógee Milan le 22 juin le 28 juin incha allah rabbi Stuttgart ana Gambian people voice my Gambian people wana doon waay wana doon Gambian people waale nga ñëw seen dëkk. te day teel a commencé wala du yeneen artistes yi day teel a ñëw Stuttgart le 28 juin yéen a ko moom ànd ci promoteur bu mag ànd ko promoteur bu mag bu yaru waa Stuttgart bis bi seen bis la ñu ngi leen di xaar Stuttgart so le 28 juin li Wally Seck nar nee na bu jàppee waa Stuttgart dana leen dóor ay concert lal leen ci mbalax mi ba sénégalais yépp di làkk allemand Stuttgart dina toj ñu yaakaar ne waale foofu la yem mu ne déedéet et eh, le 29 damay dem Belgique 29 juin juillet mi ngi Belgique 29 juin mi ngi Belgique le 28 juin mooy Allemagne et Stuttgart. non franchement parler nag neexul ba neexul mais booy wër ku bëgg Wally Seck booy wër ku gëm Wally Seck booy wër koo xamante ne dafa bëgg Wally Seck ba jeex tax. jàppal ma Adamo Adamo dafa bëgg Wally Seck ba mu jeex tax mais lenn mooy problème am desee boole du si bokkul te loolu sax wax na ko si fee vidéo <laughs> Adamo yàlla la yàlla suturaal barki Seydou Dawa xamet ya benn commentaire nee na ko Adamo bi Wally ki nekkoon jigéen ma ni da da <laughs>